xasida gu yéeme la goo xam ne dafa fees dell ak tawxiit waaye xasida la goo xam ne Sëriñ Tuubaa mi ko def da ko tënke kaamilu alxuraan bi xam nga kaamilu alxuraan bi juróom benn fukki isib la ñaar fukk ñaar fukk ak ñaar fukk boo ko boolee muy juróom benn fukk ñaar fukk njëkk yi mi ngi tàmbalee alif laam daalikal kitaab ba eh, yam ci innama sabilu muy ñaar fukk yeneen ñaar fukk yi tàmbalee xisbu innama sabilu yam ca wala tujaadilu yeneen ñaar fukk yi tàmbalee wala tujaadilu ahlal kitaab ba keroog ngay ak suuratu naasi mu jeex sëriñ Tuubaa ak ñett ñett yooyu la boole alif laam miim innama sabilu wala tujaadilu booleen boole muy kaamil bi mu daal di jël araf wu ci nekk nag def ci aw bayit muy ñetti bayit kon képp ku ko jàng rek am nu rafet njort ne dana yor jay ku jàng kamil bépp ndax ñetti ñaar fukk yi mu boole mu jël alif gi ci alif lam mim dan ne allahu min kulli karimin akramu man ammahun qadalahu lahu takarramu mu ne allahu yàlla ak akramu moo gën a tedd min kulli karimin ci jépp aji tedd mu ne suñ boroom képp kuy yor tedd nga suñ boroom moo la gën a tedd loola waxin la ni suñ boroom moom jéemut a nekk di gën a teddante kenn ndax moom moo bind lépp waaye lépp lu tedd rek ak tedd nga am loolee mi ngi jóge ci tedd ngay sunu boroom subhaanahu wa taala man amahoo ku ko jublu moom yàlla inqaada mu daa di wommatu lahoo jëm ca kookee jublu yàlla attakarramu mboolem xeetu tedd nga wala teraanga képp koo xam ne dafa bàyyi mbindee fi dem jublu yàlla la muy sàkku muy xeetu tedd nga ak yu baax yi loola mooy jekk-jekk jugal boppam ñëw ñëw ci waa ji xam nga néewul sax suñu borom moo koy wombat dana loola ci boppam mooy jekk-jekk na ñokket ñëw jëm ca kookee jublu yàlla wala suñ borom képp ku ko jublu mbollem lo bëgg day naan ñokket jëm ci ci yaw mo tax señ touba waxon nako ko jaawastu wa ma fi aidin naasi falamma wasultu ila rabbin nasi a'tani nasa wa ma fi aidin nasi neena dama bayyi nit ñi ak li nit ñi yor dem deggmal yalla mo tax bama neewé ba ak ci yalla yalla joxaat ma nit ñi jox ma li nit ñi amé kon dafa jublu yalla mu jël benen alif gi di inna sabilu داني أسلم له كلك عن إيماني ولازم الإحسان للرحمن من أسلم نجا جبل له نيال على كلك سلب عن إيماني عن نغم ولازم تنغا تقوك الإحسان تصوف للرحمن جم جاي الله نيا سنج بروم نانكو جيبال سا لب فك نك ديفار نغا سا نغم nga deva nga defal sa ngeum ba am iman ju wër am tawhid ju bax am aqida bu dëgër xam kan mo yalla teg ko palaasam boo ko defee ba nga ànd ak ay teggin muy tasawuf muy def ta yalla tax nga jël sa jëm jépp nak jébbal ko yalla bu ci desal dara sa lepp jébbal ko yalla mu jël waw gi di wala tujaadiloo ji da ne wajihu bi shukri bila kufrani tukfa hisabuhu mahannirani waa jihu na ko jëmale bi sukkuri ci di ko sant ci jëf yu baax yi mu lay defal nga di ko faye topp ay ndigalam mooy sant bilaa kufraane ci lu ludul ak weddi mooy mu defal la njëkk nga faye ko def ay bakkaar loolu mooy bakkaar mooy la in shakartum la azidannakum waaye wala in kafartum inna asabi la shadid bu ngeen ma santee ci jëf ju baax jëmalee ne defal ngeen sant ma ci tax ngeen di topp samay ndigal di bàyyi tere yi ma doli len ay xewal ba kero ngeen fek sima mu ma yóbbu leen bu ngeen ma wedde nak ta moy ma leen defal ngeen lek sama wursak di len di len may jamm lol lepp ngeen wëlbu ko sanni ko ci àll ba di ma ay togn neena ko bu ngeen ko defee day ah duma wax dina len bugal de way dama na len ah sama bugal day tarna lol suñu borom ku rafet numuy waxe la faka fee bi la in shakartum bu ngeen ma sante rek da da di wax na la azidannakum man na wat na dinaa doli dolli amul werante waaye bi mu ne wala in kafartum bu ngeen ma weddee mooy bañ maa sant waxut dinaa leen bugal mënoon naa wax la wa azibannakum <laughs> waaye waxut loolu daa wax ne inna asaabi la sadid ah bàyyi leen xel ne am naa mbugal mu doy waar de alhamdulilah lu ko bëri yërmande la nee na na nga ko jëmale ay sant waaye bu ko weddi mooy weddi njekk loolu boo ko defee tukk fa kon def na la fegal xisaabuhu régleem ma moom yàlla maxa niiraan ak sawara kon bu ëllëgee yowmal xayaam da ngay dem rek ñëw jàll waaw da ngay ñëw rek jàll àjjana tuug fa xisaabuhu taxaw ñu lay leen naan yaa amel kii diw yaa saagoon kii nee na déedéet loolu lépp du la ci fekk waaw kon jullit ñi dafa am ñaari xaaj am na koo xam ne danañ ko xisaab waaye xisaab mi day jàppandi day ñëw rek daal di xool xool ne la ah, baax na demal am koo xam day ñëw ni wif jàll yàlla nañ suñ borom boole mooy fasaw fa yu xaasabu xisaabay yasira am koo xam danañ ko xisaab xisaab moo xam ne moom tabarkàlla am ñoo xam ne moom deesu leen xisaab sëñ Tuubaa ci la bokk sëñ Tuubaa mu ne e, sant naa yàlla sa sakartuhu ala firaaqi xisaab wa jahlihi kulliyati xayra xisaab yàlla nañ ci yàlla boole kon suñ borom dana ko musal ci xisaab barab musal ko ci sawara يامن لي على ديفال ديك توب والسلام عليكم ورحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ربي يا احمد على محمد حلي خير الصلوات سمد ربي يا احمد على محمد عليه خير الصلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل وادي